صلى الله عليه وسلم بالكلية جسما وروحا واجانغوب مغتا مدينة المنورة بغض الأصافيل لم ينقص فضله بل زادهم بين الورى تفضيلا من سيدنا محمد بغض الأصافيل بانيوك ويسوفيني بانيوك جسنا كسوفي بولا بانيه دان تغيي غنا يوك ونموني بانيوك ويسوفيني لم ينقص فضله دوا نينغيلو سيدنا محمد بوكو bal kay li fi nekk zaaduhum baynal wara tafdila da koy dolli ngëneel ci nit ñi bis bi nañu koy gën a bëgg rek xam nga lu xewa inna siraaja ida abista bi daw ihi yazdaadu fiihi daw uhu takmila mu ni Seydina Muhammad inna siraaja naka làmp isa abista ndéem yaa ngay fo ca làmp ba bi daw ci leeraay ba di ci fo pour fay làmp ba mu ne yazdaadu fiihi daw uhu takmila leeraay làmp ba day gën a jolli bokk yi dëkk su ndaw la ko yàlla yónni ay montagne wër ko ay mbokkam taxaw lu baree bari ci ay mbokkam ak i saay-saay màkka pour fexe rasulullahi ne du fi du fi amee du fi sottee tey mu convaincre deux milliards yonent boobu nag moom la yàlla julli ci moom loola waral tey ñu woo turandoo sa daaru seexul xadiim tey ji yaakaar naa mbooleem soppi si jula Muhammad yi allah sala seeni lay waxtaar jërëjëf mbooleem ñi bëgg yonent bi daan julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam gis na njëriñ la mais mais mais salaatu ala ñu baree ba dañu yaakaaroon ne rek اللهم صل على سيدنا محمد وسلم ها اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي ولا ولا صلى الله على محمد ولا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم ba mu jeex mais naka te am na yeneen salaat yu yeneen yoo xam ni laa ilaha illa allah allahuma salli ala nuuri saatihi zaati waaw yaa ahadi xusbi yadi wa alayka muhtamidi bi alfi alfi la hawla wala quwwata illa billah alil azim baduxu baduxu wa ala alihi wa sahbihi wa sallim allahu akbar fi ne salaatu bayre ngoog bayre waay waay sëñ bi boobu dana war ah. allahumma salli. ala nuuri saa gars yi de sunguf la ñuy joxe ne mooy gaaw bayre. sunguf am na bayre waaye fi mu ne nii salaatu ala nabi moo gën a gaaw ci bayre. allahumma salli ala nuuri saatihi zaati yaa ahadi xusbi yeddi wa alaykum muhtamidi waaw bi alfi alfi laa hawla wala quwwata illa billah aliyal azim baduuxu baduuxu wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ndax rasulullah yi rek di ko tudd bis waaw waaw moom bayre la bayre la sal sallallahu alayhi wa sallam fi ne fi ne fi ne fi ne bayre bari naa ci ay ay xeeti sunguf yi. waaw yoo xamante ne nii da ko man lool. waaye sëñ bi yooyu tamit yor nga ko. ah daa ilaha illallah maanaam fi ne maanaam ni ma yàlla dimbalee ma mokkal ci salaatu ala nabi lu lu mu doon mokkal naa ci junni. waaw. Euh, ak yeneen ak yeneen asraar li ma ci xam bari na maa ngi ciy sant yàlla. waaw ni ma bu ma waxtaanoon ci bayre rek da ngay jàpp ni bayre rek laa mën mais sëñ bi dimbaluñ ci bayre parce que am na ñoo xam ne bayre tax ne bayre tax ñu yëkk daanu am ne bayre tax ñu filmer seen bopp pour wax lu garaaw pour ñu tëj leen pour am bayre bayre am na façon ñu ne bëgg nañ am na ñoo xam ne bayre la ñu bëgg pour am wërsëg bayre la ñu bëgg pour àdduna xam leen ñii bayre la bëgg pour mbir ma ñuy ne mbaa commerce ba ñuy def mbaa ak lu ñu mën a def mais bayre njaayit yooyu yëpp am na léegi allahuma salli ala sayyidina muhammad rafihu darajaat waduudu rafihu darajaat waduudu waduudu waaw boo ko xoolee 1782 la jàpp 1782 mooy 27 allahu 66 multiplié par par par 27 mooy 1782 am na turu yàlla tamit bu mu jàpp muy ajj xaylalun am na ñuy boole ajj xaylalun sam xasun sax sax sarafa xiisun mhm. fi ne nii bu fekkee ne yaa ngi liggéey allahuma salli ala sayyidina muhammad rafihu darajaat waduudu sunu borom dana la may bayre boo xamante ne nii dana jaaxal adduna te 1782 nga koy liggéey. bu dee ci bayre ba tey ji mën ngaa bind zuyina li naas. Oh, xubbu oh, saxawaati. wala oh, am na am na ñu koy bind 7000. am na ñu koy bind 7777. waaw am na ñu koy bind 7. am na ñu koy bind 92. am na ñu koy bind 99. moom yooyu yëpp boo jël baax na. mais am na loo ko boole. Euh, euh, zuyina da nga koy booleeg parfum parfum kaafeen kaaf. waaw su nga xaalis ak suufu jumaa suufu marché. waaw bu ko defee boo ko dee sangoo moom par force da am bayre bayre moo gën a yomb daa fi ne bayre sax ba xam-xam bu ñuul am na bayre mais bayre bu sax nag sëñ bi bayre bu sax am na ñoo xam ne hmm? dañuy am bayre un an bayre ba fay kaay ma jox la am na deux ans am boo ah. xamante ni nii kay mën naa la ko boo ko sangoo tey bayre bu toog nag sëñ bi a yokk boo ko sangoo tey tey tey tey waaw nit ñi commencé laa dégg te fi ne nii maanaam gis nga turu iblis <laughs> alaaji papan suñu borom lu mu bind rek lu nekk am na njëriñ am na njëriñ iblis fi ne li alxuraan di di kawe kawe kawe boo ci génnee baatub iblis day manqué day manqué léegi fi ne iblis moom boo jëloon tey ji nga bind yaa iblis yaa iblis yaa iblis nga bind ko 1111 waaw imaginer rek li ma lay wax ni la lu lu maanaam loolu yëpp dama koy wax rek ngir nga xam ni zulmaani yu dafa am xam naa ko waaw nuuraani yu xam naa ko fi ne boo bindee yaa iblisu junni yoon nga def ko ci njaq lu bees nga def ci yii doomu aadama di soxla ay dugub ay warga ay ceeb ay suukar ay xorom yooyu yëpp nga jël ko suul ko ci mbalit ba mu mat juróom-ñetti fan nga jël ko nga sangoo ko bayre moom yaa koy ëpp ci adduna moom. ak noo ko mën a ak noo ko mën a amee di nga am bayre waaye du bu dee bayre bi nga xamante ne nii maanaam ñi seen xol sell ñooy gisante di bëggante nga xamante ne benn naafeq du la bëgg salaatu bayre boobu baax na salaatu ala nabi moom waaye nag mais sëñ bi bayre xam nga ñu lay tudd nii rek amoo xaalis tamit wax yàlla waaw waaye fi ne fi ne bayre nag ba ah? fi ne sangatu bayre am na sangatu xaalis am na lan waaw turu yàlla yuy joxe xaalis am na am na li ñu naan kimya u saxaada du du ay caaxaan maanaam du loo xamante ne nii da koy wax rek nii ci ni ñi di ko dégg wala ki am na bay am na saafara yoo xam boo ko sangoo day am xaalis par force nga nekkee woon day dañ day dañ day dañ fi ne boo mënee boo mënoon a jël zuyu na naa la ko nga bind ko 70 waaw la xalqu samaawaati wal ard akbaru min xalqi naas walaakina aksara naas laa ya'lamuun nga bind ko 70 nga boole ko ndoxum taw waaw ndoxum géej waaw ndoxu robinet ak ndoxum teen ba pare di di di di ko sangoo barke Cheikhul Khadim sunu borom dana la ubbi ubbi go xamanteni ni dana la mu joxna la ci ndigal mën naa koo defalaat def ko defal ko kula neex wa ndax lolu lolu yëpp manam njëriñ la lo xamanteni ne ñëpp ko mën jariño mais am yo xamanteni man fi ne amna ben sangal go xamanteni juróom fukki million taxul ma defal ko nit mais fi ne boko bind ndax lu boko boo doon bind fi ne lu mu ndaw ndaw di nga jël ñaari wer wala ñetti wer mu dogo pare waye boko xasse ba songo doto wuti dara ñaari wer wala ñetti wer di nga ko tok di ko bind pour mu pour mu pare waaye boo ko xasee ba ba ba sangoo ko lépp loo dootoo wuti dara lépp lay fekk si da dem ba jàpp ba nit ñi jàpp ni yow da ngay ruxus wala dara te fekk ne sunu borom mooy tàggat xéewal yi muy muy ñëw te lépp alquran la amul lenn lu génn alquran amul amul lenn lu génn rasulullahi daal mooy ko sakkan mooy ko sakkan kii li ko sama maam Cheikhul Khadim wax ni ko wa rafahnaahu makaanan aliyyan ak wa rafahnaa laka zikraka ku bëgg a yëkkati ko ku bëgg a yëkkati ko waaw bu ci nekk da koy bind 1111 wa rafahnaahu makaana aliya wa na wa rafaxna laka zikrak waaw léegi kay ñaar yooyu leer na boo ko bindee boo ko bindee benn bu ci nekk 1111 boole ceek parfum yu neex yu amul alcool waaw nga nga nga nga nga nga nga nga koy sangoo fu bu dee kaw terrasse wala booy sangu nga taxaw ci ci banc bu kawe waaw maanaam da jóg rek da ngay jóg da ngay jóg rek ku la bëgg a detteel mooy detteelu mooy detteelu allahu akbar fi ne fi ne isa waqaxatel waaqe xa bii waaw waaw maanaam lu lu kéemaane la ndax am na turam sax woo xamante ne nii euh, li muy jàpp ak li muy boo ko dee liggéey. Mhm. maanaam wërsëg dana la yomba yomba yomba ba ci am na ki ku ma ko mës a jox benn at mu jékki-jékki woo ma fajar ni ma diw mu ne ma ah mu ma man de damaa jàpp ni yàlla daa taxañ sama war ma koo jox fi ne nii ndax ndax li muy ñëwee est-ce que du damay faatu ma ne ko déedéet yàlla suñu borom mooy def noonu buy dot sotti euh, sama pan fees na du tax mu arrêté sama pan fees na yàlla du tax mu arrêté muy muy tur woowu asmara xaxazara say si dara zara siisin lu garaaw la maanaam turu turu isa waqaati la fi ne waaqe boo ko bindee aaya bu nekk nga def ci inna haza la raison na maalahu min nafaadin nga boole ko laj ko lañ di ko sangoo da lay ubbi bu la neexee nga bind waaqe nga bind aaya bu nekk nga def ci wajaxaltu lahu maalan mam duudan moom it moom it day ubbi waate bu la neexee nga bind waa waaqia aaya aaya bu ci nekk nga dugal ci rabbana iftax baynana wa bayna xawmina bil xaqi wa anta xayrul fatihin da lay ubbi bu la neexee waaqia aaya bu ci nekk nga bind ci wa in tastaftihu fat jaamul faxat jaa akumul fatax nga nga di ko sangoo sunu borom da lay ubbi maanaam fi ne yooyu moo wax ci waaqia yëpp bu la neexee nga boole yëpp bind ko waaqia waftax lanaa kulla baamin kunta faatixu li saalihiina min alxayraati yàlla waaqia zuyina waqiha alam nasara waqiha digënta ay bu nek inna hazal la waqiha digënta ay bu nek wajahaltu lahu malan mamdudan yoy yep nga bolé ko jël kanar bu bes kanar bu kenn mësta tej nga jël ko bu bes nga ubbi ko def ko ci bir safrasi diko sango ko da ngay ko par force ah, Ken ken mun ken mun la ken mun la tere tere ubbi mais mais mais sëriñ bi yifi dal kon mi ngi ci réew mi mi ngi ci alcorane mi ngi ci alcorane wa mi ngi mi ngi ci alcorane fi ne fi li nek ci Sénégal man fi ne dama bëggoon nit ñi ñu profito ci lima yor ndax yalla mom mo xam waaw waaye ñu profité ci ci ci li nga xamante ni yor naa ko ndax doyewuma ko dara. léegi léegi nag bu ko defee. ñu di ko jëfandikoo bu ñu ko dee jëfandikoo rek lépp mën naa sotti fi ne ku tëju ku amul dara ku nekk ci place bañ faa jógee kuy yóotu place bu mu mënta jot. est-ce que ngi dégg kuy wut xaalis kuy wut bayre yooyu yëpp yooyu yëpp mi ngi fi mi ngi fi maanaam jarul nit ki di sonn yenn sonn yi pour mën a am loolu déedéet jaru ko. jaru ko jaru ko. lépp ngi ci salatu ala nabi mais lépp ngi ci. alxuraan mi karim